Heavyweights.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 deret gi sang ko gendarme xam ne nag ñoo njëkk ci béréb bi avant section de recette di ñëw ak pompier def nañu seen constat gannaaw bi ñu càmbaree xool nag li ñu gis daal li mu wane mooy ba léegi gisuñu ne meurtre boobu agression la waa kon mbir mi nu mu demee moo tax ñoo ngi caytu di xool ci yeneen bor ngir xam crime boobu lu ko waral ndax ñoom daal bi ñu xoolee dañoo gis ne ndaw si ceenu or bi mu takkoon jogul ci moom périgam tamit jogul ci moom te gaañu-gaañu yi ci digg ginnaaw gi li mu wane na mooy ay xottu biteel moo ko ko def ay waay ki def luy soxor la waaye di nga feeñ de yenn témoins yi fa nekkoon na nee nañu victime bi ndaw su xees la at yi toll ci ñaar fukki at ak juróom situation yi ni mel nag ma ne jaaxalul ñi dëkk ci VDM 3 ba ndax tàmm nañoo gis lu ni mel ma ñu ngi gis ay situation yu gën a doy waar laa la wax ndax foofu moom daanaka meurtre du fa jóg VDM boobu nag ak filawoo yi ma ne yee fay ñaaba njonge ndax def katu ñaawte fii fa la ñu ruugalaat dëkkee fa semer terreur te insécurité boobu noonu la nekkee ci banlieue bi yëpp si kamba waaw caaro yaasir mbatal ma ne defkatu ñaawteef yaa fay jaaba jonge laa wax insécurité bi nekk ci réew mi nag léegi ëpp na Sénégal léegi ñoxor njaay rek gisam ñu rey moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën graaw corona laa ndaw soosu nag ñu fekkoon neewam ci filawoo ya ndekete du kenn ku dul Dieynaba Traoré la ilaha illallah ma ne ndaw si dafa réer lu toll ci ñaari fan ñu koy wër ndekete woo ndaw soosu lañu di sa néewam ca filaawo ya nekk ca Tiwaawan pël victime bi mu ngi dëkk Parcelles Assainies ci it sax ci ginnaaw ci internet bi photom publier woon nañ ko ci page Facebook yu bari di ko wër tey mim réew léegi nag kay laaj bi nag mooy ndaw si kan moo ko war a faat ak lan moo war a tax mu faat ko <laughs> waaw waxaat ko billaay di nga feeñ tey réew mooy li ma waxoon rek ma ne yenn xeetu ray koy def sa place du prison laa la wax réew mi fi jàpp ñu ñuy rey te di ko tayir faat leen ma ne rey du fi jóg laa wax moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca Kaffrine romb na doy waar ab waaye fa jàpp jabaram dal di koy dóoro dóor ba mu jaare fa ñàkk bakkanam fop waay waay cey mim réew waa nag bi mu defee li nu mel ba noppi lim ci teg a graw ndax dafa jël buum takk ko ci baatu soxna si simile na daa xaru ma ne yenn xeetu xaru yi lu ñu war a xoolaat mbir mi mu ngi xewee ca Pancan 3 nekk ca commune bu Madinatu Salaam waa jooju nag ñu njott ne moo def jëye ji mu ngi wuyoo ci am ka am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar moom daal nee ñu coowa doxoon ci diggante ak soxnaam si di wuyoo ci turu FD am lu toll ci ñaar fukki at ñoom ñaar ñu jàppante ci la ko jàppee dóor ndaw si ba mu jaare fa ñakk bakkanam waay waay yërëm leen jigéen ñi waa ji nag gannaaw bi mu dooree ndaw si ba mu jare fa ñàkk bakkanam ci la simile daal di jël buum takk ci baatu soxna si ne dafa xaru waay seetal ma lii rek waaye nag sa waay autopsie bee ko mujjee daaneel de ndax autopsie bi li mu wane mooy ndaw si li ko rey ay blessure la yu mu am ba ci li ñu naan hémorragie interne fii de léegi léppay leer gannaaw ba résultat yi génnee nag ci la ñu alerté gendarmerie naka noonu ci la ñu arrêté jëkkër ji dal di koy sëkkatal enquête ko pasawaay mujj nangu ne moo dóor ndaw si ba mu jaaree fa ñàkk bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun moo tax ma waxaat ko yenn xeetu xar yi jar nay xool de ndax Sénégal nag moom da ngay yeewu rek dégg ñu ne ndiw takk na baatam fële dee na dafa yomb trop moo tax ma ne jàngoro dal réew moo gën graaw corona wax la xew ca almadi romb na doy war ab ressortissant français la fa mbindaanam booleek ay góor ñu jàpp ko dóor ko ba mu jaare fa bakkanam <laughs> waaw réew mi moom li fi xew topp na mbir mi nag nee ñu liyee ko indi ressortissant français bi mbindaanam bi daf ko leboon lu toll ci fanweeri junni naka noonu mu koy laaj ndaw si ndaw si télé ko ko fay ci la ko ressortissant français bi proposé mu fayee ko ko mujj koo nangu waaye nag comme li olof njaay di wax rek def naa ko un mu neex soo moytu rek nga tollanti waa ji looloo ko mujjee dal ba mu mujj soppi mbindaan bi dal di koy def objet sexuel am ndaw si bu mu demee ba mënatu koo muñ ci la recruter ay goriyam di ñëw séquestrer ressortissant français bi dal di koy jàpp ligote ko takku ko dóor ko ba mu jàll ñàkk bakkanam waay waay réew mi réew mi réew li fi xew ëpp na réew moo xam ne saa boo xëyee musiba ci kaw musiba musiba ci kaw musiba sang réew mi jot na de mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz